les hommes politiques pour affranchir pour dugg ci biir réew mi gis nañ que sa relation ak Ousmane Sonko ça évolue en temps de parfois mu nekk au beau fixe parfois aussi nga jël say distance tey jii kan la Bougane mën a àndal jëm ci élection moo xam local la moo xam ak kan la mën ko ci cadre élection euh, beneen question bi nga xam ne également moom lay andi mooy euh, Bougane tey bu gagné. Euh, allah yow mouvement nga yor yoroo parti boo xam ne ndax sa mouvement mën boo gagné yan nit nga fas yéene àndal liggéey parce que gis nañu que mouvement bi euh, peut-être c'est pas encore tellement structuré d'accord El maa ngi lay gërëm damay ñëw ci question boobu. Bougane compte sur les Sénégalais et les Sénégalaises. Bougane compte sur une administration. Bougane compte sur des Sénégalais valeureux yoo xam ne ñu ngi fii te mësuñoo jaay seen ngor. Bougane compte sur ces Sénégalais qui ont envie de transformer ce pays. Bougane compte sur ces Sénégalais qui ont envie de faire du Sénégal l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest pour pourquoi ne pas dire le pays le plus développé de l'Afrique l'Éthiopie l'a réussi pourquoi pas le Sénégal xam nga lan mooy suñu problème El Modou dañu jël ay nit ñoo xam ne mësuñoo jël taabalu gerte jaay ko mu jar ñu jox leen suñu avenir u réew c'est pourquoi j'invite les entrepreneurs de ce pays jóg leen ngeen ñëw àndandoo ak ñun ñu liggéey Sénégal loolu laa gëm li ma gëm man mooy maire bi jaay caaf li ma gëm man mooy ki teg taabalam fële di jaay ndékki ñooñu ñëpp dañoo war a jóg takk seen ndigg pour lu defar Sénégal parce que Sénégal politiciens yi ñu ko pour ma ñëw ci li nga xam ne moom ngay wax ne Bougane kan lay àndal ci wàllu politique mën naa àndak ak ñëpp ci wàllu politique ba mu des Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar ñun mouvement la ñu yor gëm sa bopp du parti politique gëm sa bopp mouvement citoyen la parce que ñun dañoo jàpp ne politiciens yi politiciens yi politiciens yi jot na ñu won leen ne ñoom moomuñu Sénégal jot na ñu won politiciens yi ne leen Sénégal gii ñiy ñaq di jariñu ñoo ko moom jot nañu gëmloo sénégalais yi ne leen liggéey mooy tax nit tekki jot na ma gëmloo suma jeune frère yi taxaw fii ne leen seen avenir mu ngi ci seen diggu loxo bu leen nangu kenn di leen wax ne moom mooy tracer seen avenir le soleil brille pour tout le monde et loolu laa gëm tey jii la preuve El Modou wax ma ndax fii tey jii ngeen ngeen ngeen may ñu ngeen may ñu may leen ñu ci bool yi xam nga bool ak tama àndul ak defar réew bu ñu nekkee ci jotaay di wax fulla ngeen dimbali ñu ci tàccu gi ak tama gi ngir yàlla may jéggalu xam nga kàddu gi mënul doon kàddu politicien man duma politicien man man ñàkk jariñu laa xam kàddu yi may wax ak yéen leblew ma ci te fayu ma ci bor barki Cheikhul Khadim bu fekkee ne liggéey Sénégal dong moo ñu tax a jóg yal nañu Seydina Muhammad taxaw bu fekkee ne lenn intérêt personnel am na ci lii ñuy yóotu yal nañu ko Seydina Muhammad xañ ba duñ ci jot kon li ma gëm El mooy Sénégal ñun ñoo koy defar ce Sénégal doit changer ce Sénégal doit être transformé mais par ses valeureux fils yéen ci ngeen bokk vous les journalistes faisons du journalisme de développement faisons avancer les choses c'est ce que je dis tout le temps à mes collaborateurs ce pays a besoin de ses dignes fils ce pays a besoin de la détermination de sa jeunesse tey jii Sénégal bu waree soppiku jeunes yi taxaw ñooy soppi Sénégal ñii fi nekk ay jinne faluñu leen ay falu faluñu leen ñun ñoo leen fal moo tax moom président Macky Sall ci élection yi ñu jëm mu ngi waajal boppam parce que jël na chef de village yi bëgg leen def ay grands électeurs ngir corompre leen ak ay salaire waaye dama ne chef de village bu ñu ci jox salaire jëlal parce que alalu réew mi la waaye nag bu la kenn féewale ak ñi nga dëkkal bu la kenn féewale ak say administré parce que Sénégal encore une fois nous avons un peuple souverain réew moo xam ne réew mu am njariñ la am kon suñu démocratie ñun ñoo koy sàmmal suñu bopp dem nañu ba ñuy gëmloo ne tey ji war nañu lundi incha allah modifier code électoral bi mais modification yooyu ci code électoral bi ñëpp ko war a xeex pourquoi parce que yegg nañu ba ciy wax naan parenage dañu koy dindi bi yoon mais bu ñu conformé woo ak disposition yu CEDEAO mais li ñu CEDEAO wax mooy nañu dindi parrainage man Bougane Gueye Sénégal si boppam ku ne xam na ne man Bougane man awma problème mu parrainage parce que nag fu ne teg naa fa suma tànk bi te fu ci ne natt naa fa suma doole xam naa ne sénégalais yi doyal nañu ci politiciens yi moo tax nga may wax naan ma est-ce que ce mouvement bi dina nekki parti politique dama ne ñun dañ ne parti politique dafa war a am ay critères bokk na ci nombre de signature bu ñu lay laaj pour nga am parti politique mu ngi ci programme bi yeggal nañ ko ba cinq cent mille signature parce que bëgguñu nit ñi di fooye réew mi bëgguñu nit ñi di caaxaane réew mi bëgguñu nit ñi di jël ay parti di ko def business politique politique kenn du ko dunde politique day mottali doomu aadama waaye politique du dundal doomu aadama te sénégalais yi dañoo noppi pare ci politiciens yi nga xam ne dañuy jëfandikoo Sénégal loolu mooy message bi nga xam ne message bu am solo la waaye li nga xam ne bëgg naa ko yokk mooy la lutte contre la corruption est-ce que xam ngeen ne Sénégal li tax Sénégal ndóol ñi gas Sénégal bëgg koo suul ñu nërmeel Sénégal ñu ngi ci biir Sénégal mooy fonctionnaire yi nga xam ne dañoo nekk ci ay position de rente nekk ci gouvernement bi di fooye alalu réew mi di sàcc alalu réew mi yéen ñi taxaw fii ku nekk xam ne ne enseignant yi ñoom moor bu Touba Mbul nga xam ne ay enseignant lañu ku nekk xam na ne yéen du ngeen tabax R plus 4 parce que seen salaire permettre leen ko tey jii sénégalais yi nga xam ne ay fonctionnaires lañu ñu leen di gis ñuy sàcc alalu réew mi et di fooye alalu Sénégal dem na sax ba ci wàllu Covid bi ñuy wax Macky Sall 75 cas la ñu amoon 75 cas mu décrété couvre-feu. tey ñu ngi ci trois cent cinquante na décrété couvre-feu na ko décrété xam nga loolu lu muy wane mooy ne ba muy jël décision bi jëlul décision bu baax et ça je l'ai toujours défendu wax naa leen nee naa leen xoolal magum quatre-vingts ans mu di Serigne Mountakha Bachir daf ñu jox ñun leçon nous la jeunesse parce que biñ ne ko tëjal dafa bañ ne leen lii nañu àndandoo xeex ko kon àndandoo xeex jàngoro ji mooy la solution waaye du woon tëj nit ñi bay mu tëjee nit ñi dafa génne 1000 milliards est-ce que tey génne na 1000 milliards moonte tey lañ ko gën a soxla mais du ko def parce que amu ko fa mu doon lebee leb naa lebal lebal lebal lebal lebal lebal lebal lebal leb bañ ne ko adada dootuñu la lebal ñun d'accord nañu sax. d'accord nañu nga leb jënd ginaar mu daldi nen nga am ay cuuj ainsi de suite ainsi de suite xam-xam mooy liggéey réew xam-xam ak gëm sa bopp mooy liggéey réew kon yéen ñii ci réew mi vous les Sénégalais je reste convaincu que vous avez changé la philosophie vous avez choisi la philosophie gëm sa bopp vous avez choisi l'esprit gëm sa bopp vous avez choisi le mouvement Gëm sa pour transformer le Sénégal vive Mbacké vive Diourbel maa ngi leen di sant allahumma salli ala seydina Mohamed merci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 sénégal7.com le roi de l'information en temps